tey fu ñuy ubbee suñu journal people tey nag yaakaar naa ni mbégte ak bànneex la suñu nee mbégte ak bànneex ndaxte doom ju juddu mbégte ak bànneex la du kenn ku dul Ndiogu euh, mbay su ñu nee Ndiogu mbay xel yëpp day dem ci Wally Ballago sekk muy xarit ci Wally Ballago Seck ba noppi doon euh, bokk ci stafam muy Ndiogu Nguuda Amina kii la ñu dippee Nguuda Amina ba noppi di liggéey foofu ci ABC maanaam muy compagnie Aziz Ndiaye Ndiogu mbay moo doon ngénte doomam ju góor ba noppi mu jël tur bi dippee ko kii di Abdoul Aziz Ndiaye di PDG ABC muy deuxième soxnam di Fatima muy bés boo xamante ni célébrité yi daje woon nañ fa autorités yi daje woon nañ fa ay xaritam ñoo xamante ñu ngi ci milieu ñu ngi ci milieu des affaires ñii ñu ngi ci milieu business bi ñoom ñëpp a fa daje woon comme Wally Ballago Seck mi xaritam nekk foofu nag kii di xaritam boobu di ah, kii di soxna yi Wally Ballago Seck di soxna ay dara moom it teewoon na foofu mu daan daal nouvelle boo xamante ni nouvelle bu neex la woon kii di Njóogu Mbay Nguuda anima Amina moo doon ngénte doomam maanaam bi mu am ak ñaareelam muy Fatima moom la ñuy naan Kor Awali Kor Fatima maanaam mooy l'homme aux deux galons Njóogu Mbay di suñu frère di mbokk taalibe ñu bokk Serigne Saliou ba jël jikko turandoom di Aziz Ndiaye jëlaat jikko turandoom di mam Abdoul Aziz Sy Dabakh ndaxte papam nit ko baax la nit la koo xamante ni am na yitte am na yëg-yëg suñu doom adam donc ñi koy souhaité bienvenue dans notre société mu doonoon baptême boo xamante ni ngénte bu mag la woon amoon na ci semaine bi kii di Ndiogu mbay Ngouda Amina di xarit ci wali Balago Seck doom ji nag ñi ngi ko dippee Abdoul Aziz Ndiaye PDG ABC